waaw man mangi ngi Papa Mamadou Diagne nek euh, président de l'association sénégalaise de lutte contre la lèpre et les maladies tropicales négligées mu nek ben association bo xamante liko tax a moy euh, xex ak ak yelleef ñi nga xamante dañ am feebar mag ñu gën xam ci feebaru ngaana. waaw jërëjëf euh, di la remercier ci invitation bi xam nga feebaru lèpre mom dafa doon feebar bo xamante xëy na wax ci dina xaw a jafe tuuti ndax majorité des populations sénégalaises euh, ñi ci bari fàtte nañu ko mais teewul mi ngi fi ba tey donc li ci am solo rek mooy que euh, population bi xam loolu xam aussi mode de transmission yi nan lay demee ak xam li nga xamante ni aussi bu la dalee naka nga koy prise en charge bi nan lay demee ak xam aussi symptômes yi naka lañ koy lay manifesté woo ci yaramu nit ki. waaw feebar bi euh, ni muy dikkee ci nit euh, li ci gën a bari ay tâche lay doon tâche yoo xamante ni mën na génn fu nekk nag ci sa yaram donc moo tax li ci am solo ba am solo mooy que euh, nit ci fu mu toll war na di saytu yaramam bu gisee yenn tâche yi nga xamante ni dafa xonq mel ni lu cuivre mu daw dem kër docteur bu ko defee ñu mën ko saytu xamal ne ko lii feebar bi la wala du feebar bi mais dina génn aussi ci yeneen anam yu ci mel ni ay picc yu ci mel ni ay ër waaye nag du picc yëpp du ër yëpp du tâche yëpp mooy li nga xamante ni mooy feebar bi pour nga am ci lu leer foog nga dem kër doctor ñoom ñoo la mën a wax carrément avec exactitude ndax lii moom la wala du moom mais su suñu plaidoyer dañ koy gën a jëmale ci côté boobu parce que tey jii li ñuy wax euh, déperdition de l'expertise lèpre dafa am Sénégal parce que boo xoolee kër doctor ñu ci bari xamatuñu feebar bi comme bu njëkk niñ ko xamee woon xëy na li koy expliquer mooy que demoon na ba wàññeeku xëy na formation bi demeetul noonu mais wax dëgg yàlla fi ñu toll ni tembe euh, baax na jot na fi nga xamante ni fa la ñuy euh, tàggatee ñi nga xamante ni ñooy kër doctor vraiment ñu gën a bàyyi xel li nga xamante ni mooy feebaru lepp d'autant plus que actuellement lèpre dafa nekkoon adulte et rural mais on a depuis quelques années que dafa nekk euh, urbain mais aussi infantile maanaam li muy gën a dal bokk na ci xale yi ak ndaw ñi. waaw niñ ko mën a moytoo nag prévention bi. mooy que li ma wax léegi rek mooy tëndiku ko mooy ngay xool sa yaram parce que dafa doon feer boo xamante ni niñ koy niñ koy wàllee moo moo xaw a doy waar ndax ki ko am am biy wàlle euh, buy tichali wala muy wax wala muy sëqat day génnee ay ay ay toq-toq ndox ci gémmi gi donc wala ci bakket bi yooyu ci la doomu jàngoro bi di nga xamante ni dugg su ko defee nit ku nekk mën na ko noyyi waaye nag doomu aadama moo am nu mu bindoo am na ñoo xamante ni amuñu système de défense immunitaire bu dëgër su ko defee ñoo ñu bu leen duggee amaana pour mu toog fa mën a defalee ko day daal di yomb mais am na ñoo xamante dañu am système de défense immunitaire bu dëgër bu yàlla dogalee ñu noyyi ko bacille bi mën nañ ko rey du développé wu ci seen yaram kon donc loolu moo tax xëy na peut-être prévention bi loolu rek lañ ci mën a wax mooy nit ñi di gën a bàyyi xel ci seen yaram mais aussi di gën a bàyyi xel cet gi cet dafa am solo ci dëkkuwaay yi cet ci yaram yi mais cet aussi ci ci ci solin wi loolu daf ci bokk na ci li nga xamante ni moom mooy prévention a waaw ci wàllum nguur gi euh, li ñu ñëwanoon mën a dimbalee mooy li ma wax léegi tàggat ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci wàllum wér-gu-yaram mais feebar bi du mbirum médical kese social bi daf ci am solo euh, raison pour la laquelle vraiment ñi ñaan état mu gën a jox gëdd ñi nga xamante ni ñoom ñooy saytu wàllum social des personnes affectées par la lèpre mais aussi gën a renforcer le système euh, médical bi nga xamante ni moom moo nekk ci hôpital yi. waaw sama kàddu bu mujj mooy euh, di di sant ak gërëma ah, ñi nga xamante ni ñëpp ñi ngi euh, yëngatu ci wàllum feebar bi parce que tey jii euh, Sénégal yàlla dogal na ni chaque année ñi nga am lu tolloog deux cent nouveaux cas te deux cent nouveaux cas yooyu li ci gën a bari ka yi wàlle lañu kon donc li muy wane mooy feebar bi mi fi jugu fi kon donc képp ku nekk ci ñun ak foo mënti nekk rek war nga ko mën a bàyyi xel di saytu sa yaram ba boo gisee loo xamante ni méngoog naag signes yi ma wax léegi nga dem kër docteur mais da day fekk aussi kër docteur googu état teg fa ñoo xamante ni xarañ nañ ba boo ñëwee dinañ la mën a wax ndax lii moom la wala du moom mais leneen ni aussi di remercier partenaire technique ak financier yi ku ci mel ni ONG Action Damien mi nga xamante ni tey bu émission bi amee ginnaaw yàlla moom la ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam mooy c'est Gorgui Diallo euh, chargé du suivi évaluation de l'organisation ACLMTN liñ ci bëggoon dolli mooy li nga xam ne mooy aspect bi nga xam ne moo jëm li ñuy wax aspect communautaire maanaam lépp li nga xam ne moo jëm si xeex euh, feebar bi surtout jëm si wàllu li ñuy wax di ko euh, prévenir parce que foofu am na lu bari loo xam ne liggéey la boo xam ne buñ ci taxawul def ko ak askan bi Euh, du li lu bari man nañuy dal nit ñi parce que maladie bi nek na maladie bo xamne ci si joggé ci nekki nu nit ñi la euh au hygiène assainissement ak promiscuité bo nga xamne ne ci euh askan bi lu am solo la ba wara mëna fexé ba nga xam nit ñi dinañu yok ciet gi yok aération bi yok nekkin bi ba mu gëna mëna mucc ayib ba nga xam ne euh, feebar boobu du am fenn fu mu war a mën a aw. waaw conseil yi njëkk a jox euh, population bi mooy ñu jéem a waxtaan ak ñoom pour ñu jéem a gën a xam feebar bi mu nekk feebar boo xam ne depuis des millénaires dafa chargé de préjugés ñu war a fexe léegi gën ko xam pour gën ko mën a aar. loolu lu ci am solo la beneen bi mooy tamit euh, comme source am yu ci ëpp nuñ koy waxee dafay lié ak euh, euh, lu jëm si wàllu cet nekkin donc dana baax tamit askan bi ñu gën leen ci yee ndaxte buñ koy xool feebar bi fi nit ñi gën a danqalikoo fa la ëppee bu ñu xoolee Sénégal ni muy jógewaat dinañ ko gis ci yenn région yi maanaam comme fu mel ni Njaareem fu mel ni Kaolack fu mel ni Dakar ak fu mel ni Thiès donc yooyu yëpp buñ ko xoolee fu bari nit la ah te problème mu cet dana fay far di posé wu ba telle sorte que war nañu mën a fexe ba nga xam ne ñooñu danañu mën a fexe ba aar affaire bi beneen bi mooy aussi li nga xam moy euh, li ñuy wax bodan bod bi nga xam dañ ko def ñi nga xam dañu affecté par la lèpre lolu aussi baxna bu bari ñu waxtaan ci ak askan bi parce que charge psychologique bu euh, personne affectée yi 10 euh, na 10 bo xam bu si communauté bi jouéwul sa partition dina yok exclusion bi yok discrimination bi te loolu day gën a aggraver euh, kaaw malaat yi parce que dina leen stressé loo dina leen yóbbu à la dépression euh, dina tax lenn li naan di yokk ñuy xalaat naan dañoo soxor loolu yëpp fekk boobu population bi moo créer barrière yooyu ak euh, malaat yi ba nga xam ne day isolé wu dañuy am na ñuy xoolante am na ñuy gisante te maladi bi nekk na maladie boo xam ne buñ ko commencer faj rek mënatul wàlle loolu yëpp buñ ko population bi xamee rek luy luy luy luy luy tax ñoom ñëpp ñu ñaari côté yëpp ñu ñemente ba mën a nekk ba nga xam ne malade poids psychologique bi muy dund dana mën a wàññeeku